Baay Ousmane nee mu ngi sant yàlla bu baax a baax. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di gërëm Maulana ki nga xam ne. moo donn seeni mbóot ci li nëbbu ak li feeñ. yore njëriñal aduna ak alaxira. yor mbootam yàlla ci feeñ ak ci li nëbb. ak sirru yonent ci li feeñ ak ci li ak sirru yonent ci yor maqaama Seex Ahmad Tijaani feeñ ak ci li mi Mawlana Seex Ibrahim radiyallahu anhu ñi ko dégg yal nañ ko nangu amiin yaa rabbi. ñi seen falit bañ yal nañ ko nangu yaa ci nangu biñ koy nangu ci la aduna di pare ci mboolem jafe-jafe yi aduna am. jafe-jafe bii ñu nekkee. mu ne jafe-jafe bii ñu nekkee. bàyyi dem ba di ko dagaan ci julit ñi. bàyyi dem ba di ko dagaan ci julit ñi. dara waralu ko. dara waralu ko. lu mooy xeex tariqa Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. te xeex bi mu ngi gën a méttee ci buntu see Ibrahim. te xeex bi mu ngi gën a méttee ci buntu Cheikh Ibrahim. te wallaahi. mu ne te wallaahi. wax ne. Baye moo wax ne. fépp foo xam ne di di diine lislaam àgg na fa. fépp foo xam ne diine lislaam yegg na fa. bu fekkee nar nañ koo jëriñoo. bu fekkee ne nar nañ koo jëriñoo. dafay fekk tarixa Seexu Tijaan àgg na fa. dafay fekk ne tarixa Seex Ahmad Tijaani yegg na fa. tarixa Seex Ahmad Tijaani boobu itam. mu ne tarixa Seex Ahmad Tijaani boobu itam. lubbi bi. lubbi bi. nga xam ne mooy mbootam tarixa ba. nga xam ne mooy mbootam tarixa bi. naan ci géeju Cheikh Ibrahim. faaw danañ naan ci géeju Cheikh Ibrahim bi. ñooñu nag. mu ne géej googu nag. ñun yàlla dimbale nañu ba ñun naan nañ ci. ñun yàlla dimbale nañu ba ñun naan nañ ci. tàkkamtiku nañ ko. tàkkamtiku nañ ko itam. mu ne te géej googu. mu ne te géej googu. dafay setal dafay mandal. dafay setal waaye itam dafay mandal. te set nañ ci wecc te mandi nañ ci. te set nañ ci wecc waaye itam mandi nañ ci. mandi nañ moo xam ne doo ànd ak dafay dafay ànd ak mar woo foo toll. mu ne mandi goo xam ne nag dafay ànd ak mar foo mën ci toll yow. ñuy sàkku ndimbal ak ndollan fu mën a toll. mu ne loolu moo waral ñuy sàkku ndimbal ak fu mënti toll. ndax nag loolu mooy maqaamam pays bi xel min masid lay wax toujours. ndax loolu mooy maqaamaay pays bi toujours dafay wax rek xel min masidin. Hmm, bu fekkee ne yàlla moom képp koy laaj. mu ne moom képp ku koy laaj. xam nga ne. xam nga ne. xam na lum la dolli de. ndax wax na zarni wa man xalaqtu wahida. mu ne yàlla wax na ci alquran na zarni wa man xalaqtu wahidan. su ko neexee. mu ne su ko neexee. baat bu firi tëkku. baat ba firi tëkku. su ko neexee. su ko neexee itam. faat baat ba firi bëgg laa dimbale. baat ba firi bëgg laa dimbale. ndax ñun. mu ne ndax ñun. Sénégal li ñu gën a sonal. Sénégal li ñu gën a sonal mooy. mooy ku yàlla dimbale. képp ku yàlla dimbale. nga fàtte yàlla mi la dimbale. nga fàtte yàlla mi la dimbale. jël ndimbal li jox ko keneen ku dul yàlla. jël ndimbal li jox ko keneen ku dul yàlla. mu ne te ndimbalal yàlla ci ñun. mooy wàcc gi Cheikh wàcc ci ñun. mooy na wàcc ci Cheikh Ibrahim wàcc ci ñun. te ñun. mu ne te ñun. delloowuñ njukkal loolu Cheikh Ibrahim. delloowuñ njukkal loolu Cheikh Ibrahim. réew moo dem. mu ne bépp réew boo dem. fekk ñu jox Cheikh Ibrahim lay seen njukkal. ñu fekk ñu jox Cheikh Ibrahim lay njukkalam foofa. nañ ko war a jox. nañ ko war a jox. mooma réew jug na ci pauvreté. mooma réew moom jug na ci pauvreté. mooma réew jug na ci fitna. mooma réew itam jog na ci fitna. mooma réew jug na ci balaa. mooma réew itam jog na ci balaa. mooma réew yàlla teggi na fa dee dem safara. mooma réew yàlla teggi na fa dee dem safara. kon nag ñun. mu ne kon nag ñun. wala mbokki taalibe yi. mu ne wala ñun mbokki taalibe yi. bu fekkee bëgg nañ yonent yàlla Muhammad. bu fekkee ne bëgg nañ yonent yàlla Muhammad. te bëgg njabootam gi. te bëgg njabootam gi itam. nañ taxawee njabootam gi ci fexe leen ñu sóobu Cheikh Ibrahim. nañ taxawee njabootam gi te fexe leen ñoom ñëpp ñu ànd sóobandoo Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. ndax al al xalqu kullu iyaalullah. mu ne ndax yaa hadis dafa wax ne mbindeef yëpp njaboot yàlla lañu. ku bëgg yàlla bëgg la. mu ne ku bëgg yàlla bëgg la. bëgg njabootam gi da ngay bëgg njabootam gi te bëggal leen jàmm te bëggal leen jàmm itam te bëggal nit ñi jàmm te bëggal jàmm nit ñi nag mooy nga fexe ñoom ñëpp ñu texe mooy nga fexe ñoom ñëpp ñu texe mboolem anbiya yi fi ñëw ak mursalina yi mboolem anbiya yi fi ñëw ak mursalina yi lan moo leen yóbbu ci xaritoo ak yàlla lan moo leen yóbbu ci xaritoo ak yàlla mooy mooy yéene njaboot ak yàlla gi ak texe mooy yéene njaboot ak yàlla gi ci ak texe loolu rek moo leen yóbbu ci am yu maqaw yi ñu am loolu rek moo leen yóbbu ci maqaamu yooyu am. kon képp ku bëgg a xaritoo ak yàlla. mu ne kon képp ku bëgg a xaritoo ak yàlla. na nga ko jéem a wuutu ci mbindeefam yi. na nga ko jéem a wuutu ci mbindeefam yi. ci yërmande. ci yërmande. ci ndimbal. ci ndimbal. lépp loo xam ne doom aadama koy yittewoo te lor newu ca. ci lépp loo xam ne doomu aadama daf koy yittewoo waaye ca lor nekku ci loolu. bu leen di gaañante. bu ñu gaañante mukk nag. bañante bu ñu bañante itam bu leen di wanante gannaaw bu ñu wanante ginnaaw bu leen di ndokkoo wante bu ñu ndokkoo wante nga ziyaara bii ngeen def nii mun a gis nga ziyaar bii ñu def nii su fekkee ne nangu na su fekkee ne nangu na bu déwénee bu ngeen fi dajee bu déwénee buñ fi dajee kenn du noonoo ak moromam kenn du noonoo ak moromam ci ñun su boobaa ci lay xam ne yàlla nangul na mu ne su boobaa nag ci lay doog a xam ne yàlla nangul nañu ko yàlla nañu ko yàlla nangul yaa rabbi yonente sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam génnee na ndox ci diggante ay baaraamam génnee na ndox ci diggante ay baaraamam nandal ci xare bu yaatoo yaatu. nande ci xare bu yaatoo yaatoo yaatu. ñu sangu ci nandal ci seen i gëlëm. ñu sangu ci nandal ci seen i gëlëm. ba mu paree. mu ne ba mu paree. dafa wax ne way ma. dafa wax ne way ma. ana ku may way ci yéen. ana ku may way ci yéen. Seydina Ali moo ko tagg. mu ne Seydina Ali karamallahu wajhahu moom moo ko tagg. tagg ko taggin wu rafet mu ne loolu itam. dafay wàcc ci awliyaa yi. dafay wàcc ci awliyaa yi. dañu wax ne way ma de. daf leen wax Baye Ousmane mu ne way ko de du leen wax ne woy leen ma de. mu ne du leen wax ne woy ma de. waaye wax ne xool leen ma. dana leen wax ne xool leen ma. su ngeen ma xoolee. su ngeen ma xoolee. yàlla dana wàcc ci yéen yërmande. yàlla dana wàcc ci yéen yërmande. ak ndimbalam. ak ndimbalam. may leen ngeen di ko fuglu ak may leen ngeen di ko fuglu itam ngeen fi bàyyeekoo mu ne su ngeen fi bàyyeekoo su ngeen demee ñi ngeen bàyyi ñi ngeen bàyyi woon su ngeen demee ci na ngeen bàyyi ginnaaw na ngeen fexe ngeen xool leen ak xarxanam bu leer na ngeen fexe ngeen xool leen ñoom ñëpp ak xarxanam bu leer a leer su boobaa su ngeen leen xoolee su boobaa su ngeen leen xoolee ci seen xarxanam yu leer yi kanam yu leer yi. la ñuy gisee sama jëmm ci seen jëmm ci la ñuy gisee jëmmam ci moom Baye Ousmane ci seen jëmm yi yéen ñëpp nag. su boobaa. mu ne su boobaa. wallaahi yàlla dana leen yërëm. wallaahi yàlla dana leen yërëm. te dana leen dimbale. te itam dana leen dimbale. billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa. billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa. barke Cheikh Ibrahima. barke Cheikh Ibrahima. ndamu ma te wutuma mbooloo. ndamu ma te wutuma itam. sama dara nekku ci. waaye lii may wax. mu ne waaye lii may wax. bàyyi moo ma ko tëbb mu di ko wax ni jaay. bàyyi moo ko tëbb mu di ko wax. mu ne bu fekkoon ne nekkul woon. xeres naa waxal Cheikh Ibrahim loo amut. xeres naa waxal Cheikh Ibrahim loo xam ne nekkul. kenn fekkul Baye Ousmane. mu ne kenn fekkul Baye Ousmane. muy yëkkati mbagam ci kaw nit ñi. muy yëkkati mbagam ci kaw nit ñi. wala muy wan nit ñi ne maa leen gën. wala maa leen ëpp xam-xam wala maa leen ëpp daraja wala lenn ci yàlla wala lenn ci yàlla ñëpp morom la leen def ci yàlla ñëpp xarit la leen def ci yàlla ñëpp xarit la leen def ci yàlla waaye du dagan ci man mu ne waaye du dagan nag ci moom Baay Usmaan ma xam ci man luy yërëm jaami yàlla yi mu xam ci moom luy yërëm jaami yàlla yi te itam waxuñ ñu ko ñun nag su boobaa mu ne su boobaa yàlla dina na ko woo laaj te boo ko laajee bu boobaa du am mukk lum lay nag lu mooy kañaan laa gisoon lu dul rek kañaan la gisoon. mu ne tamam Baye Ousmane. jullit ñi ak yéefar la yemale. ñi ko bëgg ak ñi ko bañ la yemale. ñi ko bëgg ak ñi ko bañ yëpp la yemale. ñi gëm yàlla ak ñi ko wedd la yemale. ñi gëm yàlla ak ñi ko wedd yëpp la yemale. man bindeef rek laa gis. mu ne moom bindeef rek la gis. jamaa daal di kaayinaat yëpp la yemale. jamaa daal di ak kaayinaat yëpp la yemale. ñëpp ñëpp njabootu yàlla. ñëpp njabootu yàlla lañu. foofu foofu la yegg ci yàlla. foofu laa àgg ci yàlla. te du ma ko du ma du ma ko delloo gannaaw. te du ko weerante mukk te du ko delloo ginnaaw itam. waaye. mu ne waaye. wax na leen ne. nañ sax ci jaamu yàlla. nañu sax ci jaamu yàlla. ci ni ko yàlla bëggee. ci ni ko yàlla bëggee. te bañ koo jaamoo. bañ koo jaamoo. ci nim ñu arrangé. ci nim ñu arrangé ñun. bis dana ñëw. mu ne bis dana alal du fa jëriñ. alal du fa jëriñ. doom du jëriñ. lenn du fa jëriñ. lenn du fa jëriñ. lu mooy xol bu nooy jëm ci yàlla. lu dul rek xol bu nooy jëm ci yàlla. gannaaw bu ngeen àndee Cheikh Ibrahim. mu ne gannaaw bu ngeen àndee Cheikh Ibrahim. ci dëgg gim ñu woo. ci dëgg gim ñu woo. nañ ko jàppale ci lim ñu indil. nañ ko jàppale ci lim ñu andil. ndax kat yàlla daf daan yónnee. mu ne ndax kat yàlla def daan yónnee. dafa mujj bàyyi yónnee ba ñëw teewal boppam. dafa mujj bàyyi yónnee ba ñëw teewal boppam. te teewaay boobu man maa ngi gisee jëmm ji Cheikh Ibrahim. mu ne te teewaay boobu moom mu ngi gisee jëmm ji Cheikh Ibrahim. te nañu ne. mu ne te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne. julli leen comme ni ngeen gisee may julli. julli leen rek comme ni ngeen gisee may julli. kon Cheikh Ibrahim. mu ne kon Cheikh Ibrahim. tabaxal nañu jumaa de. tabaxal nañu jumaa de. Hmm, jàngal nañu alquran. jàngal nañu itam alquran. nañu gàmmu. defal nañu gàmmu itam. waaye mosta woote benn bés ngir boppam. waaye mosta woote benn bés ngir boppam. ñun ñoo xam ne. mu ne ñun ñoo xam ne. njukkal. ameel nañ ko njukkal. ameel nañ ko njukkal. ameel nañ ko njukkal. bëgg koy feeñal. bëgg koy feeñal. ñoom Baye Mbaye dajee defal ko bisab ziyaara. ñoom Baye Mbaye radiyallaahu anhu dajee defal ko bisab ziyaara. ziyaara mu ne ziyaara. du firi lu dul ziyaada du firi lu dul rek ziyaada. dolleeku rek lay firi. dolleeku rek lay firi. te weer wii ngeen ko defee. mu ne te weer wii ngeen ko defee. weeru ziyaara la. weeru ziyaara la. weeru jokk mbokk la. weeru jokk mbokk la. weeru dimbale jirim la. weeru dimbale jirim la. weeru saafonte la. weeru saafonte wonte la. weeru jaamu yàlla la. weeru jaamu yàlla la. suñu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane ci la yéegee ci maqaam yi gën a kawe. suñu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ci la yéegee ci maqaam yi gën a kawe. kon na ngeen xam ne muharram weer wu doy waar la. mu ne na di weer wi ñu nekk weer wu doy waar la. taamala yu bëri am na ci. mu ne te am na yu bëri am. taamala yu bëri am na ci. mu ne yu bëri am na ci. waaye mu mucc yu bëri it feeñe na ci. waaye mucc yu bëri itam feeñe na ci. ndax bis bii. mu ne ndax bis bii. ci la Adama. ci la Adama. génne woon ca. ca ca kaso bañ ko tëjoon. génnee woon ca kaso bañ ko tëjoon. maanaam génnee nañ ko biir aljana yóbbu ko daaru duniya. maanaam génnee neen ko biir aljana yóbbu ko daaru duniya. aljana kaso woon la woon ca moom. mu ne aljana kaso la woon ca moom. donte bànneex moo la la fa nekkee woon. donte la bànneex la fa nekkee woon. sant nañ ko lépp mu laal ko am luñ ko aaye. ndax santoon nañ ko lépp ko ba mu des am ko aaye. aaye nag fépp fu mu amee rek kaso dikk na ci yow. mu ne aaye nag fépp fu mu amee rek kaso dikk na ci yow. ndax yàlla daf laa may xel may la ay bët. ndax yàlla daf laa may teg bët. moo ñu wax ne. moom yàlla moo ñu wax ne. alam naj'al lahu aynayni wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn alam naj'al lahu aynayni wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn falaqtahama al-aqaba wa maa adraaka ma al-aqaba mu ne loolu. wane na nit ki yàlla may na ko muy gis di dégg. wane na ne nit ki yàlla may na ko muy gis di dégg. di mos di wax. di mos di wax. di ràññee. di ràññee. yàlla jubal ko nag ci yoon yoon wi mu war a jaar bi mu war a jaar bu baax bi la wala mu senn beneen yoon mu ko neex mu yoonu safaan ba. yàlla jubal ko nag ci ñaari yoon ci yoon bi mu war a jaar muy bu baax bu sell bi wala mu jaar ci safaan bi muy yoon bu bon bi. boo jaaree ci yoon wi la yàlla gërëm. boo jaaree ci yoon bi nga xam ne moom la yàlla gërëm. nga jàmm xam nga jàmm boo jaaree ci yoonu safaan bi boo jaaree ci yoonu safaan bi tooñ nga sa bopp tooñ nga sa bopp te yàlla nag tooñul kenn te yàlla moom tooñut kenn maa ngi leen dénk ragal yàlla ak Baye Ousmane nee na mu ngi dénk ragal yàlla ak jaamu ko ragal yàlla ci suñu bopp. nañu ragal yàlla ci suñu bopp. nañ ko ragalee itam ci mbindeefam yi. nañ ko ragalee itam ci mbindeefam yi. nañ bàyyi ayib bi nit ñi. nañu bàyyi ayib bi nit ñi. te suñu ayib yi nañu doy. te suñu ayib yi ñun nañu doy sëkk koo xam ne. mu ne képp koo xam ne. yaa ci sa bu morom. yaa ngi toog di wax ci sa boo xoolee ci sa bopp. boo xoolee ci sa bopp. da nga yëg ne am nga ayib yu ëpp yi nga am. da ngay wax ci sa morom ki. nañ bàyyi jaami yàlla yi ak yàlla mi leen moom. kon nañu bàyyi jaami yàlla yi ak yàlla mi leen moom. ne. mu ne mu ngi wax ne. feeg yéen a ngi ànd seen xol yi àndul. feeg ñu ngi jot. liñ bu loolu am. mu ne mu ngi ñuy ne. joxante seen loxo yi ci loxoy xol yi. nañu joxante suñu loxo yi ci loxoy xol yi. kenn ku nekk. mu ne kenn ku nekk ci ñun. dox jël loxoom jox ko moromam muy muy sunnaay papa Mahdi Ibrahim. na jël loxoom jox ko moromam mu nekk sunnaay papa Mahdi. wax ko ne baal ma àq. wax ko ne baal ma àq. moom itam mu ne ko baal ma la baal ma àq. bisab saafuwante la. mu ne tey jii bisab saafuwante la. Baye Ousmane nee na mu ngi wax ne. loxo mu ne waxuñ nag joxe suñu loxo yi loxo yi kese kese de. loxoy xol waaye mu ngi ci mu ñu joxe suñu loxoy xol yi. nee na juboo ci suñu biir la bëgg ñu def ko. ñun ñëpp ay doomam lañu. su ngeen àndul. fépp fu ñu ànd. su ngeen àndul. mu ne suñu àndul. loolu rek la koy andil moom Baye Ousmane. ndax moom mu Ousmane mënuñu koo xar def ko ñaar. te mënul ànd ak ñii bàyyi ñi ci des. mu ne ñëpp benn lañ ci moom. ñi jub. mu ne ñuy jub. defuñ ko seen bopp. ko seen bopp. ñi dëng. ñi dëng. defuñ ko seen bopp defuñ ko seen bopp itam. yàlla la neex. yàlla la neex. mu jël ñu jub def muy seet. mu jël ñu jub def leen ñuy ay seetu. ñi dëng di xool ci ñoom. ñu dëng di xool ci ñoom. xam na liñ nekkee baaxul. xam na liñ nekkee baaxul. ndax ñu mën a wëlbatiku. ndax ñu mën a wëlbatiku. yàllaa jël ñi dëng def leen ñuy seetu. yàllaa jël ñi dëng def leen ñuy seetu. ñi baax di xool ci ñoom. ñi baax di xool ci ñoom. ba mën a bàyyi lu bon. ba mën a bàyyi lu bon. dénk ngeen ragal yàlla ci jaamu yàlla nee na mu ngi ñuy dénk ñu ragal yàlla ci jaamu yàlla yi kenn ci yéen du yàqu mu ne kenn ci ñun du yàqu mukk yéen a ngi jëfee li ma leen sant bàyyi li ma leen tere fekk ñu ngi def jëfee lim ñu sant waaye itam ñu bàyyi lim ñu tere yépp nag addiya ji ngeen ma indil mu ne addiya bii ñu andil ko maa ngi koy aj maa ngi koy aj mu ne mu ngi koy aj ci addiya Cheikh Ibrahim ci addiya Cheikh Ibrahim moom mi ko yeeyoo moom mi ko yeeyoo ndax ziyaara mu ne ndax ziyaara képp kuñ ko defal ci réew mi képp defal ci réew mi. xam nga ne war ngaa gërëm Cheikh Ibrahim. xam nga ne war ngaa gërëm Cheikh Ibrahim de. bu dul woon moom. bu nekkul woon Cheikh Ibrahim. benn taalibe du laxas di seeti benn sëriñ di ko di ko ziyaara. benn taalibe du laxas di seeti benn sëriñ di ko ziyaara. te fekk sëriñ ba nekk sëriñ buy jëriñe ni Cheikh Ibrahim. te fekk sëriñ ba nekk sëriñ buy jëriñe ni Cheikh Ibrahim. waxuma sëriñ buy joxe ceeb. nee na waxut sëriñ buy joxe ceeb nag. waxuma sëriñ buy joxe alal. waxut sëriñ buy joxe alal itam. waxuma sëriñ buy joxe yàpp. waxut tamit sëriñ buy joxe yàpp. waxuma sëriñ buy joxe alal. waxut itam sëriñ buy joxe alal. waaye sëriñ buy joxe yàlla laaw. waaye sëriñ buy joxe yàlla yàlla bu mel ni Cheikh Ibrahim. bu am ci kaw suuf. masta am ci kaw suuf. dootul am ci suuf. te dootul am ci kaw suuf mukk nag. kon ku ko yàlla may. mu ne kon ku ko yàlla may. nga xam ko. nga xam ko. buñ la indilee ziyaara. buñ la indilee ziyaara. te ñu ziyaara si. te ñu la ziyaara si. yaag moom yaag ñoom démb rek yéen a ngi bokkoon nekk ay ceddo fii. yaag ñoom démb rek yéen ngi bokkoon nekk ay ceddo fii. di defandoo li xale yi defandoo ak defandoo ak ñëpp. di defandoo ak li xale yi def di duggandoo fi xale yi dugg ak ñëpp. di def lépp li xale yi def. di def lépp lépp li xale yi def. nga xëy benn bis ànd ak Cheikh Ibrahim quelque temps. nga xëy benn bés rek ànd ak Cheikh Ibrahim quelque temps. mu sóob la. mu sóob la. soppi la soppi la. ba nga mel neneen. ba nga mel neneen. diir rek. bi diir rek. ñenn ci ñi nga doon àndal dikk di la ziyaara si. ñenn ci ñi nga doon àndal démb dikk di la ziyaara si. nekkul sa liggéey waaye waaye xam nga ne loolu nekkul sa liggéey de su nañ gërëm Cheikh Ibrahim mi nga xam ne moo waral loolu mu leen di gëñal ci yàlla képp koo xam ne ñëw nga fii képp koo xam ne ñëw sa aajo yàlla faj na sa aajo alhamdulilah ci li feeñ ak ci li nëbb ci li feeñ ak ci loolu mu ne dikkal la léegi léegi léegi aatif bu ko dikkal la léegi léegi léegi du maqaama du daraja du maqaama waaye itam du daraja xamal nañ ma rek ku sa aajo mu ne xamal nañ ko rek ne képp ku fi yow sa aajo faju na alhamdulilah. mu ne te loolu yàlla def na ma lay wax mu ngi noonu kaamil a ngi nii. mu ne lim lay wax noonu kaamil a ngi nii. mat gaa ngi nii. mat gaa ngi nii. kii moo ko ko indil. yal na yàlla barkeel ñu. bi jaay rasulilahi. ci barke yal na yàlla faj suñuy aajo. yal na yàlla yëkkati leen. yal na yàlla yëkkati yaa rabbi. yal na yàlla kawel yaa rabbi. képp ku fi ñëw. ku fi ñëw. ak képp ku ñuy dégg. ak ku ñuy dégg. képp ku taxaw ñu bokk dënd bi di ko noyyi. képp ku taxaw ñu bokk dënd bi di ko noyyi. yàlla yàlla yërëm la. yàlla yàlla yërëm la yore sàmm la. yàlla yàlla sàmm la. yàlla yàlla yëkkati la. yàlla yàlla kowel la. yàlla kawel la. yal na yàlla baal la say bakkaar. yal na yàlla baal la say bakkaar. lépp luñ ko jaamu. lépp luñ ko jaamu. yal nañu ko nangul. yal nañu ko nangul. lépp luñ ko tooñ. lépp luñ ko tooñ. yal nañu ko baal. yal nañu ko baal. nañu xam ne. mu ne nañu xam ne. ñun ay jaam lañ. ñun ay jaam rek lañ. yàlla mooy kilifa gi. yàlla mooy kilifa gi. waaye yàlla na xam ne. mu ne waaye yàlla itam na xam ne. na xam ne. na xam ne. ñun ñu bëgg Baay Ñas lañ. ñun ñu bëgg Baay Ñas lañ. ñu bëgg soppeem bi lañ. bi lañu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne képp ku teral borom xam-xam képp ku teral borom xam képp ku teral borom xam-xam teral nga ma man yonent bi teral nga ma man yonent bi te ku ma teral man yonent bi te képp ku ma teral man yonent bi teral nga yàlla teral nga yàlla te képp ku teral yàlla te képp ku teral yàlla sa dëkkuwaay mooy aljana sa dëkkuwaay mooy aljana te ñun mu ne te ñun teraanga bépp bi ñu am teraanga bépp bu ñu am xam nañ ne du suñu liggéey xam nañ ne du suñu liggéey mukk nag du suñu mën a jaamu yàlla du suñu mën a jaamu yàlla du ngëneel du ngëneel du xeet du xeet du gaño du gaño du alal du alal topp Cheikh Ibrahim mi bëgg bàyyi mi bëgg yonent bi rek la topp Cheikh Ibrahim mi bëgg yonent bi rek la ba maas ñu lim ñu maas rek ba maas ñu lim ñu maas rek ñu amee ci ak màgg ñu amee ci ak màgg su boobaa mu ne su boobaa dañuy ñaan yàlla dañuy ñaan yàlla yàlla buñ ci gis suñ bopp yàlla buñ ci gis suñ bopp yaa rabbi buñ ci bew yàlla buñ ci itam cee am dara benn cër bu dul yàlla ci am dara benn cër lu dul ne rek mbiram yàlla la. mbiram yàlla rek la de. mbiram man mu ne man Baye Ousmane. yow ma ku leen gën. nekkut ku ñu gën. jaam yàlla rek laa ci seen kanam. jaamab yàlla rek la suñ kanam. xoote jëmee ci yàlla. xoote jëmee ci yàlla. ci buntu Seexu Tidiane. ci buntu Seexu Tidiane. ci hadara Mawlana Cheikh Ibrahim. képp ku ma topp. képp ku ko topp. foofu la jëm ak yow de. foofu la jëm ak yow. woowu ma la ci yaay woowu ma la la ci baay. ma kenn ci askan. woowut kenn ci askan. woo ma kenn jëmee ci beneen diine bu dul diine lislaam. woowut kenn jëmale ci beneen diine bu dul diine lislaam. taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum an laa na'buda illa allahi wa laa nusrika bihi shay'an. kaay leen rek li alquran wax ne ñëw leen ñu dem ci benn baat bi nga xam ne buñ fa yemoo ñun ñëpp dañuy jaamu yàlla mi nga xam ne moom rek mooy kenn kenn dootul mën bokkaale boromam. loolu. mu ne loolu. ci laa nekk. ci la nekk moom Baye Ousmane. ci ci laa leen oo. te ci la ñu oo. te tey bii. mu ne te suñ bisu bii. yàlla moo ñu wax ne Ali. mu ne moo ñu wax ne Ali. ndax sëñ Aliou Ndiaye mii. mu ne ndax sëñ Aliou Ndiaye mii. sama rakk la. rakkam la. sama xarit la. laa ko tuddee. mu ne Aliou Ndiaye mu yaru la ko tuddee. fuñ ma ko tuddalee. mu ne fuñ ko ko ndax dafay wax ne ndax Aliou Ndiaye mu yaru mi nga may wax. beneen Aliou Ndiaye bi dof laa ko tuddee. beneen Aliou Ndiaye bi moom dof la ko boobu Aliou dama Aliou Ndiaye dof ngay wax wala Aliou Ndiaye Aliou mu yaru ngay wax wala Aliou Ndiaye mu yaru Aliou Ndiaye dof mooy Aliou Ndiaye Kossi mu ne Aliou Ndiaye dof mooy Aliou Ndiaye Kossi Aliou Ndiaye mu yaru mooy Aliou Ndiaye bu papa Mahi Aliou Ndiaye mu yaru moom mooy Aliou Ndiaye bu papa Mahi na ngeen xàmmee tur yooyu ñoom ñaar la ko séddale mu ne kon na ngeen xàmmee tur yooyu ñoom ñaar la ko séddale soo gisee turu Aliou jëm kaw mu ne soo gisee turu Aliou jëm kaw papaay Seydina Ali dafa tukki. papaay Seydina Ali karamallaahu wajhahu dafa tukki. yaayam am doom gannaawam. yaayam am doom gannaawam. ñu tuddee ko Azadine. ñu tuddee ko Azadine. bi papaam ñibbisee. mu ne bi papaam ñibbisee. ñu ne ko sa jabar na ko. ñu ne ko sa jabar ji am na doom sa ginnaaw ba tudd nañ ko. ñu ne nuñ ko tuddee. mu ne nuñ ko tuddee. gaynde lañ ko tuddee Azadine maamam. ñu ne ko gaynde lañ ko tuddee maamam. Azadine. Azadine. mu ne man sama doom Aliou laa koy tuddee. mu ne man sama doom Aliou laa tuddee. ci namm. ñu ko loo ci namm. mu ne damaa bëgg mu nekk ku kowe. mu ne damaa bëgg mu nekk ku kowe. defe na ne kowe de. na de. waaye itam Haydara ji yaayam tuddee woon. ñibbis ñibbis na ci moom de. maqaama boobu ñibbis na ci moom de. ndax gaynde la ci lislaam. mu ne ndax gaynde la ci lislaam. jàmbaar la ci lislaam. jàmbaar la ci lislaam. ku rafet jëf la ci lislaam. ku rafet jëf la ci lislaam. ku taxawu la. ku taxawu lislaam la. ku wattu xam-xam la. ku wattu xam-xam la. waaye itam ku amoon yar la ak teggiin. ku amoon ak teggiin. mu boole ñaari maqaama asadin la haydara la. mu boole ñaari maqaama yi asadin la waaye itam haydara la. mu ne waaye itam xaliin la. kon su fekkee ne yéen seen jotaay bi tey. mu ne kon su fekkee dañoo wax ne seen jotaay bi tey. da ngeen ko def ziyaara ngir yokku ci yàlla. dangeen koo def ziyaara ngir yokku ci yàlla. ziyaar boo xam ne Baye Demba ne dafa ñëw te ak benn tawat. mu ne ziyaar boo xam ne Baye Demba dafa wax ne dafa ñëw te àndul benn tawat. waaye man xam naa seen tawat yi. waaye moom Baye Ousmane xam na suñ tawat yi ñun ñëpp nag. su fekkee ne aw tawat yi yëkkati nañ ko jëmee ko ca yàlla. mu ne su fekkee ne tawat yi yëkkati ko ca yàlla. ñu yëkkati dañ koy teg ci baatab Ali yi mu jëm ca kaw. ñu yëkkati ko dañ koy teg ci baatab Ali yi jëmale ko ca kaw. mu yóbbul ñu ko ci malawul ala. mu yóbbul ñu ko ci malawul ala. foofa la ñuy tamponné kayit yi. foofa la ñuy tamponné kayit yi. mbooleem mbooleem soxla yi foofa lañ koy tamponné. mbooleem naa ci yàlla. mu ne gëñ na ci yàlla ne. yàlla faj na ajo yi. yàlla faj na ajo yi. waxuma leen dina faj aajo yi. yaa moom waxut ñu ne yàlla dina faj aajo yi. dama ne yàlla faj na aajo yi. waaye daf ñoo ne. yàlla faj na aajo yi. mu ne waaye. mu ngi dénk. na ngeen gàddaayee ci Makka ngeen dem Medina. nañu gàddaayee ci Makka ñu ñëw Medina. na ngeen saxal sariyaatu ci seen xol yi. nañu saxal sariyaatu ci suñu xol yi. ndax loolu kat mooy indi wërsëgu yaatu yi nga xam ne gis naa xiin wi xiin dana ko taw. mu ne nga xam ne gis na xiin wi. teen ko Sénégal dem a ko taw. Ibrahima a ngi nii toog. mu ne Ibrahima a ngi nii toog. damaa dem Pade ànd ak Baye Demba. dafa dem Pade ànd ak Baye Demba. ñu def fa gàmm jëm seedu def fa gàmm. def fa gàmmoo dem seedo def fa gàmmoo. ma yeewu war a xëy ñibbisi fii ci Kaolack. mu yeewu war a xëy ñibbisi fii ci Kaolack. ñu won ñu yoon wi. ñu won ñu yoon wi. mu ne ko déedéet nañ aw ci àll bi. mu ne ko déedéet nañ aw ci àll bi. ndax xam nga yoon wi. ndax xam nga yoon bi. mu ne ko man jàng naa juxraaf. mu ne ko mu ne ñu ñun. Baye Ousmane moo ñu wax ne jàng naa juxraaf. xam naa ni ñuy defaree bu sol. xam naa ni ñuy defaree bu sol. man mënumaa réer ci àll. man a réer ci àll. rawatina Sénégal gu tuuti gii. rawatina Sénégal goo tuuti gii. mu ne ko boo jaaree nii danañ danañ dem barab sangam. mu ne ko boo jaaree nii danañ dem barab sangam. te mosuma jaar ci yoon woowu. te mostu jaar ci yoon woowu lu dul keroog. Ibrahima ni mooy sama seede. billaay maa ngi woon ci oto ba moor moo doon dawal. ñuy dox ci digg àll boo xam ne amul yoon. jëmul ci kër ñuy dox ci digg àll boo xam ne. amut yoon waaye itam jëmut ci kër. bam yàgg may leen. bam yàgg rek mun na ñu. pétrole a ngi xeeñ fii. pétrole mu ngi xeeñ fii. réew mi am na pétrole te léegi mu feeñ. réew mi am na pétrole te léegi mu feeñ. ma ne billaahi wallazi laa ilaaha illaa huwa. mu ne ñu billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa. balaa ma fee del si balaa ma fee del si déwén. pétrole boobu dana feeñ. pétrole boobu dana feeñ. Ibrahima maa ngi nii toog. wallaahi dëgg la maa ngi fa biñ ñibbisee. biñ ñibbisee. amul ñetti weer. amul ñetti weer. ñu ne pétrole feeñ na ci Fuuta ak gaz bu bari. ñu ne pétrole feeñ na te Fuuta ak gaz bu bari. te loolu bi ma koy wax. te loolu bi mu koy wax. boobu expert yi mu gis. xaj bëggoon na maa wax loolu wala bëggoon na ma koo won moo ma tax a jaarloo ci àll bi. xaj na yàlla bëggoon wala bëggoon na ko wan moo tax mu jaarla ma ci àll boobu. te foofu rek la nekk de. mu ne te ndaxam du pétrole bi la nekk. réew mi lépp Cheikh Ibrahima def na ko ko ndàmb. mu ne réew mi lépp Cheikh Ibrahim def na ko ndàmb. ndax moo ko ñaanoon. ndax moom moo ko ñaanoon. ñoddi ko mu ñëw ci réew mi. ñoddi ko mu ñëw ci réew mi. te yàlla du dellu mukk kàddoom googu. te yàlla du delloo mukk nag kàddoom googu. ndax mooy xalifaam. ndax moom mooy xalifaam. ci jëmmam. ci jëmmam mooy xalifaam ci xaalam mooy xalifaam ci xaalam mooy xalifaam ci maqaamaam mooy xalifaam ci maqaamaam mooy xalifaam ci sirroom moom mooy xalifaam itam ci sirroom moom lépp lu wax dara wax képp ku ko dégg yàlla na nga ko nangu. ba buf tawal. ba buf tawal. benn wali yu dootul wàcc ci kaw suuf. benn wali yu dootul wàcc ci kaw suuf. ñu tamponné na sa wilaayatu. ñu tamponné sa wilaayatu. lu dul ne da ngaa jokk ci Cheikh Ibrahima. lu dul ne rek da ngaa jokk ci Cheikh Ibrahima. ku ko dégg yàlla na nga ko nangu. képp ku ko dégg yàlla na nga ko nangu. mënumaa bañ nag ku am tur wu rëy. nee na munul bañ nag ku am tur wu rëy. mënumaa bañ ku am askan wu rëy. munul bañ itam ku am askan wu rëy. mënumaa bañ ku am njàng mu rëy. muntu bañ itam ku am njàng mu rëy. mënumaa jàng mënumaa bañ ku am alal ju bari. waaye muntu bañ itam ku am alal ju bari wilaya ci pays se Ibrahim. mu a waaye wilaya ci pays yàlla bii. mu ne waaye wilaya ci pays yàlla bii. kenn dootu dootuñ ko tamponel ko tamponel kenn lu dul ne rek dangaa nekk tijaan. boo nekkee tijaan dootuñ la ko tamponel lu dangaa nekk taalibe Cheikh Ibrahim. boo nekkee tijaan sax doyut duñ la ko tamponel mukk lu dul ne danga nekk taalibe Cheikh Ibrahim. rajo laa takk de. mu ne loolu jar takk de. rajo laa takk laa wax. mu ne rajo la takk de. nëpp li muy wax làqu ma ko. nëpput li muy wax waaye itam làqut ko. billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa. billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa. kenn dootul àgg la yàlla. kenn dootul dañ koo muri. lu dañ koo muri. kon nañu fexe muri suñ kiiraay jëm ci yàlla subhaanahu. kon fexe muri suñ kiiraay jëm ci kenn nag ku ma xam kuy muri ay kiiraay ku dul bàyyi man gisuma ko. kenn nag ku ma xam kuy muri ay kiiraay ku dul bàyyi nees man gisuma ko. amul amul. Bye. ci des ñëpp dañuy wax rek lu leen neex waaye amul de. ñi ci des ko doon woote. mu ne bi ko bàyyi soog woote. bi nga koy a woote. ñëpp de. fi la fekkoon ñëpp. ñëpp ko weddi woon. ñëpp ko weddi woon. booba kenn amu ko woon. booba kenn amu ko woon. bi mu ko feeñalee ba nga xam ne njëriñan ci. bi mu ko feeñalee nag ba ñëpp xam ne njëriñan ñu ragal ne seen njaboot dana ko ñàkk. ñu ragal ne seen njaboot yëpp danañ bëgg bëpp jubali Cheikh Ibrahima ñu ñàkk seen njaboot yi. di ñu daal samp ay teg pakk ñoom tamit na dañuy xam la yàlla waaye na nga xam ne dañuy wax ne dañuy xam te jaa ko jokkuwuñ mu ne waaye na nga xam la yàlla te jokkuwuñ ci Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu na nga seet seen i na nga seet seen i rek mbaa dof duñ la nirul mukk lu dul xesaw xunn wala dof waaw loolu jëm ñoom foofu rek la ñu jëm ndax yàllaay kese ju ànd ak yonent bi amul benn njëriñ mu ne ndax yàllaay kese amul benn njëriñ tilim rek la lay indil tilim rek la lay andil gis ne moom rek la lépp loo gis ne moom rek la da gis da leneen lu mel ni moom te doo ko ca boole da nga gis leneen lu mel ni moom te doo ko ci boole soo def lu bon def ko bëggee def lu bon def ko ne ci yàlla ne yàlla la. nangu ku ko defal. te doo nangu mukk ku la ko defal. kon xam nga ne li ngay wax noonu dëgg ci. kon xam nga ne du dëgg ci yow. dama ne yàlla yàlla rek la. mu ne yàlla rek la. du ñaari couleur. du ñaari couleur mu. waaye nag moo meloo nu nekk nag. waaye nag moo meloo nekk nag. moo nekk nag. moo laa leer. te baram balaa mu laa leer. nga foon banab Cheikh Ibrahim. sama bopp. nee na mu ngi rek tax. dimbale wante. nañu dimbale wante. yàlla tax. te yàlla rek tax. bu ñu ndokkoowante benn yoon. bu ñu ndokkoowante benn yoon. ci yéen nekk soxlaay ñëpp kenn ku nekk ci yéen. soxlaay kenn ci kenn ci yéen nekk problème mu ñëpp. kenn ci na nekk kenn ci yéen na soo gisee Badar nit ñi bariwuñ woon te not. xare bu bari. mu ne soo gisee badar nit ñi bari ci lim ta not xale yu bari dara waralu ko déggoo ak bëggante dara waralu ko lu dul ne rek déggoo ak bëggante bu fekkee am na lu may denkaane mu ne moom Baye Ousmane bu fekkee ne am na lu muy dénkaane weesuut na ngeen ragal yàlla mooy nañu ragal yàlla. loolu rek la leen dénk. lii rek la ñuy dénk. te nañ ko ragalee ci jaamam yi. te nañ ko ragalee itam ci jaamam ñi. bi ci des. mu ne bi ci des. mooy kat miyatu bii di ñëw. mooy kat miyatu bii di ñëw. nga xam ne. nga xam ne. ñun Cheikh Assane Deme la ñuy tiitaroo. ñun Cheikh Assane Deme radiyallaahu anhu la ñuy tiitaroo. mooy suñu jant. moom mooy suñu jant. mooy suñu zil mooy suñu ker. moom mooy suñu ker. moom lañ yaakaaree ci bàyyi li ñu am. moom lañ yaakaaree ci bàyyi moo taxawee guddi gi ak njabootam. moom taxawee guddi ak njabootam. moom tam njabootam ñoo amee ci ñun yaakaar njabootam ñoo amee ci ñun yaakaar ngir ñu taxawee guddi googu. biñ koy waaj taxaw fii lañ njëkk a def première réunion bi fii ci guddi gi Baye Ndiaye fekke na biñ koy waaj a taxawal fii ci buntu kër gi leen defee première réunion bi te Ba fekkee na ko. lañ ñu sasoon. mu ne lañ ñu sasoon. seet na ba xam ne sasoo métti na. seet na ba xam ne sasoo metti na. ci kenn ku nekk ci ñun. ci kenn ku nekk ci ñun. ma wax leen ne. mu wax ñu ne. yéen ruusi yéen a ngi nii toog. ñu ngi nii toog. li commencé ci Baye Ndiaye. li ko commencé ci Baye Ndiaye. Baye Baye Demba. ak mboolem muqaddam ak mboolem muqaddam yi. baax yéen a xam da ngeen di fusionné da di fusionné xadra yi. mu ne yéen a xam di fusionné xadra